aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen waa dara ji nga xamante ne bii yéenay topp sunu liggéey bi ci YouTube bi sunu chaîne bi di Diwane TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm di ñaan sa borom mu guddal seen fan te wéral seeni cër ci barkeb alxuraanul karim di leen wax ne gis nañ yëg gi ak taxawaay bi rafet gi rafet ak sopp gi ngeen ñi sopp ak safoo gi ngeen ñi safoo muy góor muy jigéen di mag di ndaw ku nekk ñu ngi lay nuyu di wax ni ku si nekk yëg nañ la te ñoo ngi lay ñaanal jàmm ci barkeb alxuraanu karim waaye safoo ngeen safoo seen bi leen rek la leen di sant mooy ngeen di abonné tey partage vidéo yi te di aimé vidéo yi te képp ku ngeen mën a wax mu abonné chaîne bi ngeen wax ko mu abonné incha allahu rabbi te xam ne njariñ rek la si jëlee waaye du ci jëlee lor benn yoon incha allahu rabbi di jaajëfal ñi nga xamante ni bii ay kilifa lañ tey safoo seen bi Massamba Gueye ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax démb jokkoo nan mu doon ko baax ndeysaan doon maa rab boo xam ne macha allah jàmbaar la sëriñ Assane Fall risaatal ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax di la ñaanal jàmm bu baax a baax. di leen nuyu ak waa Risaatul gépp di ñaan suñu borom guddal seen i fan te wëral seen i cër defal leen barke Serigne Saliou Pouy Salif Sané ñu ngi koy siyaar bu baax Serigne Ñangeer di ñaan suñu borom guddal fanam ak wëral cëram Serigne Baara Jaxate kër gu mag ñu ngi lay ziara bu baax a baax a baax di ziara bu baax mbokki soppe yëpp ñi ñu xam seen tur ak ñu nu xamul ñëpp rek te chaque jour ñuy woote incha allah di ñaan jàmm. ñu ngi leen di jaajëfal rawat na ñi nga xam ne noo nekk bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di <coughs> ziar baax jaa ñu ngi koy ziar baax a baax moom itam sëñ jaa di ñaan suñu borom guddal fanam te wéral cëram alhamdulilah Mamadou Ndiaye ancien gendarme moom itam ñu ngi koy ziar baax ancien gendarme moom itam day safoo liggéey bi te di ko topp chaque jour di ñaan suñu borom guddal seeni far ñëpp rek. ci barke alxuraanu karim di wax yal na suñu borom woyofal mbas mi ci barkeb alxuraanu karim tey ñu indi leen lu am solo lu jëm ci wàllum kaaraange mi nga xam ne sëriñ nga dangay ñaan nit dikk ci yow ni la kaaraange laa bëgg wala yow mi nga xam ne doo sëriñ waaye bëgg nga kaaraange te xamoo nooy def ba am ko jurul ngay dem ci kenn dafa ñàkk sab xaalis fexee la gis ku la bindal lii nga addiyal ko maanaam nga jox ko xaalis mu bindal la ko jar na ko nag wallahi wal qur'aani kaaraange la goo xam ne bii képp koo xamante da ngaa nekk ca barab ñi di la xeex barkab alqur'aanu karim wallahi ñu di la xeex moo xam nga nekk si ko ñi di la xeex moo xam nga nekk si société ñi di la xeex ba nga jóge fa nga bëgg kaaraange gu wér gu wér laa la wax jëru ngay dem ci kenn dafa ñàkk xaalis ñu lay jox lu bari ngay sangoo ko ak a takk lu bari jëru ko wallahi bu dee barab ko nekk ñi di la xeex lii de boo ko jëfandikoo nga sangoo ko wallahi wal qur'ani képp ko bañ wala mu di xeex dina la abal barab ba moom dina fa jóge ak nu mu fa jógee wallahi a du leen bokk barab ba mukk te képp ku la laal nekk dina laal suuf wallahi ku la nekk dina laal suuf maa ngi leen koy jox li ma leen waxoon nag man ak yéen lu wér te wóor rek laa di indil ndax nun yàlla dogal na bokkuñ ci xam ne nax nit ñi ak ngir li seen poos ndax liggéey bu nekk sa ngay jaamu yàlla te liggéey bi dañ koo def xañ na ngir dimbali suñu jëmb waaye ngir jaamu si yàlla sunu borom ngir jaamu ci yàlla sunu borom ci jaam ñi ndax ndal ku nekk fa nga nekk nga mën koo jëfandikoo la nga bëgg nga am ko waaye li ma daa wax rek nangu moom ci suñu borom la nekk nekk suñu loxo bu fekkonte nangu daa nekk suñu loxo yi ni ñu amee ak yéene génn leen xam-xam yi di leen ko jox na la leen koy joxee waaye nangu nag ci loxol suñu borom la nekk te ku nekk suñu borom mooy xam na muy doxalee mbiram ak ñenn ñi nga xam ne ay sëriñ lan te suñu borom dogal na nañuy yëngu ci wàllu ñaan te yenn secret xaw leen a jafe te xañ na la leen cee laaj xaw a bari bokk na ci li tax itam ñi di ko def ñamit ñi man cee jot ci ak yombal xam ne bari na ñoo xam ni ban commencé ak seen kaye leen jënd doon wax ñu noté ko te loolu lépp nga neen la comme na nga jëfandikoo lii may bëgg wax bu dee kaaraange rek doy na sëkk moo xam lay xeex moo xam nga bari noon ak jëfandikoo lii nga toog te dalal sam xel boo ko defee day képp ku jëm ci yow ku nekk sedd nañ ko robi waaw bu dee barab boobu loo boo nekk ñu lay xeex boo ko defee sa yëpp deen fa jóge ci kàttanu suñu borom loolu mooy lan mooy gis ngeen ko ci foto bi ma def faida kaaraange gu doy waar takte bu tabat maanaam da ngay bind tabat ñetti yoon nga koy bind tabat ba mu jeex tabat ngay bind saari ba mu jeex waaye nag ñu koy bindee mooy dan koy ju juutal dan koy juutal ñetti tabat yëpp dañ koy juutal maanaam juutal mooy da ngay commencé sa darñel booy bind doo commencé tabat da ngay commencé sa darñel ba min masad moomee ngay commencé min masad fa ngay commencé jëm si tabat juutal boo ko waxee koo xam day bind bind kat la moom xam na ko ñetti tabat yun juutal ngay bind boo paree danga koy def saafara nga wut dareeti mbott dareeti mbott lu garaw la leen di wax dareeti mbott sotti ko ci sotti ko ci saafara si nga sangoo ko benn yoon doy na sëkk wallahi azim man ngaa dem demal kaaraange total ak demal man ngaa dem boo ko defee mën ngaa dem dërtul ngay waxat waxi waxi kaaraange bu ko waxati te xam ni képp ku dal sa lépp loo gis ma gaarale xamal ni si yàlla la jóge waaye pexe mbindeef rek képp ko laal ku nekk dina laal suuf barke alxuraan yal na ko suñu borom barkeel te boo ko barkeelee yal leen ko nangul ci barkeb Seydina Muhammad sangu-sangu yi di waat ci yéen abonné yëpp ngeen ñaanal ñu fanu gudd wu ànd ko gudd wu ànd ko wér la leen di sàkku ngeen ñaanal ñu ko bu baax a baax suñu borom defal nu ko képp ko julli moo xam muy jàng alxuraan wala muy jàng si nañu ko ñaanal wala muy sikkar tur yàlla nañu ko cay fasaale fanu gudd wu ànd ko wér ndax si la lépp nekk fonu gudd mbokk amee wu ànd ko wér si la lépp nekk ngeen ñaanal nu ko nag te ñaanal ko seen bopp ngir liggéey bi moo gën a jëm kanam ci barkeb alxuraanu karim ba ñu baree baree bare ban man di dem daje di gisee ci jëmi suñu borom rek tax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ndongo di Serigne Saliou saar ak wala ñu ne Serigne Saliou Sarr xisnul abraar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yal na yàlla defal seen i mbir defar seen i defar suñuy mbir te def suñuy poos dara wasalaatu wasalaamu ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu